100% Guédiawaye bi ñu doon gis ay ñoom la de guerre ah ñoom Alioune Seye ñëpp doon topp ci ginnaaw Balla gi mais combat bi seen ñoo ñëpp dafa mel ne xaw ma dañ ñëwuñu wala seen dafa dàq loolu wala dañ leen a écarté ci combat bi. dañoo gëmul 100% bi 100% yi gars yi wax gëmuñu ko ci làmmiñ la yam 100% buñ ko waxee waxee waxee wuñ ko stade ba 100% mooy Balla Gaye am na combat mbëri poore génn Guédiawaye ñu daje ci benn ruq tey guy gi Alioune Seye 2 lees 2 ñeneen ak ñeneen Sa Thiès ñooñu ak groupe boobu noonu. bu ñu dajalee ak Balla Gaye ci benn ruq bu ñu contacté ak moom weer lu mu lu mu ñàkk mën na ko am waaye 100 pour cent boo am ci làmmiñ lay am ku ne sa ruq nga nekk naan 100 pour cent géej waay du 100 pour cent de ku ne sa intérêt personnel ngay dox dañuy rafetal nii rek ah 100 pour cent bi moom du 100 pour cent pour nañ dem stade déedéet 100 pour cent bi mooy bu combat bi taxawee mbër nañ dem physique mbër nañ dem contact mbër nañ dem musculation 100 pour cent parcelle moo gën a dëgër jamono bi ñu toll nii bu ñoom waa parcelle moom ñoom laa gën a gis seen bos dëgër na parce que boo xoolee Modou Lo Papa Sow Franc Goro Sock Garga Junior ñooñu rek doy na làmb. 100 pour cent géejewaay bi mbëri yi nga xam ne ñoo ànd jàppal si yenn contact bi bi combat bi ñoom gis ñu leen ci ginnaaw Balla Gaye ah waaw loolu dama jaaxal na ma nag wax dëgg yàlla loolu moom Balla Gaye nga koy laaj ndaxte xëy na xëy na moom ñoom ñoo xam ni ko seq walla dara mais si open press am gis naa si la dëgër mu ànd ak moom waaw. mais nag ci làmb ji dañoo tere ni képp koo bokkul écrit buy bëree amoo droit dem ci suugam xam naa loolu tax waa géej parce que bokkuñu écrit kee école de lutte Balla Gaye la ne kii écrit waalo guy gi nekk école euh, Mor Fadam donc bu kenn daan bëri si ñoom mën nañ ñëw sa open press mën nañ ñëw sa entraînement mais buy demee ci làmb ja duñ fa doo doo mën a dem ci moom quoi waaw lool rek la waaw ñu ngi ñëpp nag. 100 pour cent géejuwaay bi. mbër yi bari gisuñu leen ci an ci ginnaaw Balla gi. 100 pour cent Guédiawaye beeg 100 pour cent Pikine man yooyu dese naa koo gëm parce que man damaa jàpp ni contact mooy dëgg. contact lañ war a jàppalante. buñ bokkul di contact wala bokkuñu di sato pour man 100 pour cent Guédiawaye 100 pour cent Pikine moom gëwuma ko daal loolu moom dama koy wax. mais taxaw ci saako yi ni yaa mën yaay daan ñoom ñëpp loolu la ñuy consciente yaa ko mën pare nga nii ma la gisee ni yaa nga fa gis nañ ko ci ma seen ñaa gis ko ci Balla Gaye ak kii bi ak Bombardier bi gis ko ci Lac de Guiers ak Eumeu seen gis ko ci yeneen ak yeneen ñooñu ñëpp 100 pour cent 100 pour cent moom 100 pour cent bi ma xaw a gis mu xaw maa convaincre tuuti mooy li may dégg parcelle te ñoo mujjee jug ni 100 pour cent booloo bi ma gis ci ñoom gisuma ko ci ñeneen. nañ liggéeyaat ci loolu bu baax a baax tey jàppalante